sitting bi li ko waral d'abord comme li ma waxoon léegi rek man maay docteur Alioune Dia jiite fii nga xam ne mooy wàllu hôpital Madabou Fawzeyni syndicat bi ñuy wax bi jiite médecins yi pharmaciens ak ñi faj wàllu bëñ docteurs yi faj wàllu bëñ léegi tey jii boo gisee ñu taxaw di def sitting mooy dañoo gis ne dañoo affecté suñu benn collègue mooy ki faj wàllu roñoo te affectation bi jaarul yoon parce que moom mu ngi fi lu mat juróom benn at di liggéey ci hôpital bi di liggéey liggéey bu rafet ñëpp kontaan waa dëkk bi kontaan ci moom mu nekk ci ñi nga xam ne ñoo ñëkk njëkk a nekk médecin néphrologue ci Sénégal nangoo jóge dakaar ñëw ba fii nga xam ne ëpp na 100 kilomètres de Dakar pour ñëw liggéey fi boobu ba léegi muy góorgóorlu jàpp ci tabax bi ñu tabax ba fépp pratiquement egg na muy centre de dialyse boo xam ne dina am fanweeri machine ak juróom loo xam ne pratiquement amul fenn ci Sénégal Afrique sax boo ko fi wër dina jafe kooku ñu xëy xëy affecté ko ci loo xam ne nii deful def nekkul lu mu def ñu yëg ko wala ñu wax lu mu wax ñu dégg ko ñu affecté ko tëb tëb affecté ko fu sore sore sore njum loolu nag lañ ne moom d'accorduñ ci ñun syndicat bi nga xam ne ñooy toppatoo wàll woowu ñu ne d'accorduñ ci. Mhm. waaw dafa am ab document bu ñu bu ñu yóbbu fële ministère ñun syndicat bi ne wàllu affectation daa am nu ñu ko war a doxalee lu ñu wax guide de mobilité waaw loolu boo ko doxee boo affecté nit du am benn jafe-jafe parce que dañu xam na nga ko teg ci yoon maanaam ñi ancien ñi yàgg def lu mat juróomi at ci région yi bu ñu leen di affecté dañu war a gën a jegeñal hmm? koo xam ne am na expérience. koo xam ne ni yàgg naa liggéey bu centre bu mag amee kooku lañ fa war a yóbbu mais du yóbbu ku bees di ko fa yóbbu di ko jël ku bees di ko fa yóbbu loolu moo tax ñu gis ne c'est pas normal moo tax ñuy demander ministère ñu rétablir justice. loolu ba tey bokkut ñee ay directeur d'hôpital yi xam nañ ne chaque chaque cinq ans dañu war a dañu war a dañu war a dañu war a bouger waaw te ñoom seen seen mbir mooy ministère mooy juger. ci performance ban hôpital lañ bëgg a relever kii noonu ñun demul noonu ñun ay fonctionnaire lañ li ñu bëggoon ñu basé wu ci guide de bi nga xam ne mooy tax ab docteur jóge fii dem fu gën a tane benn docteur bi door a génn dem feneen ainsi de suite noonu lañ ko bëggee mais euh, loolu daal c'est pas daal bokkul lañ nekk ñu war a comparer waaw loolu de ni ngeen ko dégg noonu lañ ko déggee mais ñoo li ñu ci wax moom soriwul li ñu bëggoon daal mooy ministère nit bu amee problème ak ak ak guide du ci affectation la ko war a régler waaw ñun ay liggéeykat lañ lépp lu ñuy sanctionné wala lu ñuy posé comme problème dafa war nekk ci wàllu liggéey bi mais warta nekk ci ay jafe-jafe ak kilifa diine wax dëgg fa yàlla voilà comme bu ngeen gisee ni ko commencé woon defoon nañ ñu ñu wax communiqué de presse wax ci biir presse bi ñëwaat fii sitting léegi nag li ñu bëgg defaat mooy jokkoog ak niveau national mooy syndicat bi ci réew waxtaan ak ñoom comme ñu ci lañ leen war defaat parce que wax li ñu bëgg mooy bëgg ñoo bàyyi mu sedd noonu daal foog ministère euh, jël ay solution par rapport a cela waaw fi ñu wax ak yéen ni dem na parce que comme fonctionnaire la bu ñu affecté dañuy dem jël service mais mu nga fa actuellement mais teewul nag jël service boobu teewul li ñu bëgg mooy mu dellu siwaat fi occuper post bi mu fi doon occuper parce que centre bi ñu tabax yaakaar nañ ne mooy ki gën a yelloo pour mën koo diriger. waaw commencé gul mais am nañ yaakaar ne ci lu yàggul dara dara dara dina ah njum. voilà noonu centre amagul centre de dialyse service ba mu nga fa mais amagul centre de dialyse ay machines yu ñuy utiliser di def dialyse amagu fa waaw même bu demee foofu aussi mën nay liggéey di consulter ak yooyu mais dialyse bi nga xam ne waaw mu amagu fa te comme moom ko expérimenté la ku xam liggéey ba ku ci xarañ la dem sax ba France def yeneen diplôme li ñu bëggoon mooy mu ñëw ci centre bu mag bi nga xam ne nii moom moo gën a yelloo ak moom mu diriger ko. kon jàpp ngeen ne ak demam day indi gàllankoor wala jafe-jafe wala da ngeen a. waaw waaw jàpp nañ ko bu baax a baax a baax du ko ni ki fiy ñëw xereñul déedéet du loolu waaye kii fi ñëw jeune la ba pare santé bi ni mu toll dafa soxla ay médecins yu bëri soxla médecins yu expérimenté loolu day lu ama am solo ci liggéey bi déedéet par contre moom magam la ko jàpp ak maître am parce que médecine ku ne xam ne ne képp ku la jiitu danga koy wekk moom dafa wekk ki nga xam ne moom tey mun a affecté bu sañoon tey di ñëw fekk si ko fii ñu liggéeyandoo ensemble mu jàng ci moom lu baree bare bare doyul fi ñu toll nii ak centre bi war a ubbi lu ëpp lu mu dee dee dee war naa mat ñaar jëm ñett mooy tax liggéey bi dox ni mu war a doxee te centre mag boo ko amee toppatoo malade yi mu laaj yëpp dafa laaj ay médecins yu bari yu am xam-xam yu mën a toppatoo malade yi mu ware